vidéo bi dama ko def spécifiquement pour Aïssata Tall Sall xam nga dañu baxé nak toujours bu ñuy ñëw ñu wax suñu fulla ak fayda ci nit ki bu ñu paree ci yow ñu continuer ci té ñun nak comme ni ñu koy toujours on est très bien informé des personnes waaye vidéo bi juñju la guerre bi tambalégul Aïssata yow yaa nekkoon ministre des affaires étrangères aujourd'hui tu es la ministre de la justice remplacé Ismaïla Major Fall Quand tu xam ne remplacé Malik Sall Malik Sall moomu yow Aïssata Tall Sall fexe nga ba jox ko contrat moom ak sa dom. sa sa sa goro Pape Gueye Pape di jëkkëru Fatima Sall muy sa dom, bu yow ñom ngeen jox li nga xamne moy contrat bracelet électronique yoy ngeen xamne ne ci bracelet yi a takalon ki di pap di euh, pap euh, manam El malik Ndiaye mu pasteur bracelet yoy nekk ci internet bi entre Dis et 20 euros ngeen ñew di ñuko jaayé ay 2000 mille nangam euros Aïssata Tall sal jeukeram son mari isa sal la tuddou Issa Sall Clédor Sall le tout. Issa Sall c'était un magistrat Titao Abdou Diouf Issa Sall c'était un magistrat Titao PS Abdou radié de la fonction publique ndax ak satch, Soufou atte attekat la bo pour atte doomu day yurux yarax da koy indil sa suuf atta diggante suuf moom mu fexe yéen ñëpp ngeen ñàkk suuf si mu jot ko moom ay Tall Sall sax yor na immeuble ville moom am na immeuble boo xam ne noonu la ko amee ville moom Aïssata Tall Sall immeuble bi mi ngi rue Jules Ferry Dakar rue Jules Ferry la nekk dinañ leen indil foto yi lii may indi nii lancement la pour ngeen xam doom yaram yi Macky Sall jël sëfleen réew mi li tax ñu japp rew mi en otage li tax ñom ñu japp ñu bëgg bakkanu Ousmane Sonko kut ko kut dama bëgg ngeen xam lool Aïssata Tall Sall ñaari doom lañ ko xamee Clédor Sall ak Fatima Sall amna nak nag doomu jiitle manam doomu koku euh doomu jëkkeer je ko jur waye Aïssata Tall Sall jur ko donc nañu xamné ne lo len créer ci Sénégal bi ñun paré nañu pour guerre ak nous, xam nous ko sa Nous yi xam nañu fu ñuy fréquenter nous nañu fu nous ne nous di localiser nous nañu sa jëkk dañ leen xam sa c'était un magistrat qui a été radié de la fonction publique ndax njuuj yow doomeeraam Nous nga nekk bandi boo xam ne ci Sénégal kenn xamul sa fu mu toll xam nga ñu bari comprendre ñu bari dañu yaakaar né banditisme Aïssata tata Sall amna mais vous n'avez pas compris vous voyez madame, entourage de Macky Sall c'est un grand groupe de grands délinquants et de grands mafias cartel lañu waxna je vous l'ai dit et je vous le répète c'est un cartel fexe leen ngeen jël vidéo bi yobul ko Aïssata Tall Sall né ko li lancement le film bi jotagul film bi jotul bis bu ma ñëwee dinaa la futti ba sa taat yu lax yooyu adduna bi yëpp xam ban façon bànni nga on ne va plus accepter cette forfaiture jaay doole bi ngeen nekkee Sénégal day jeex bu leen neexee ngeen dem jëli société boo leen bëgg ci adduna bi ngeen indi ko Sénégal on s'en bat les couilles ñun faalewuñu leen société bii ngeen indi Mediapart Fournal France dossier opération intox de la part de la société Avi Partners Avi Partners société bi ngeen indi nii Sénégal tey pour bëgg mu dimbali leen ci ay intox ak ay tappale pour noo leen jotee ci bakkanu Ousmane Sonko société boobu adduna bi yëpp xamee nañ leen banditisme yow sa jëkkër c'était un faux magistrat yow avocat yi gën a bari tappale ci Sénégal ci nga bokk say doom xam nañu leen yéen a toog bëccëgu ndar ay sata bracelet électronique yi ñuy takkal nit ministre de la justice Malick Sall ak sa goro mais ñoom ñoo am contrat bi loolu ñun ci ban société la ñu nekk ay bracelet électronique yu war a jar entre dix quinze et yéen ngeen koy jaayee ay milliers d'euros ngeen surfacturé ko de presque mille pour cent yéen ay imbécile ngeen dolen dara te billahi comme ni mala ko waxe li tambali la li lancement la film bi ñewagul bis bu film bi ñewé Fatima d'or wo ñep da nañu xaru ndax lama xam ci sen bay xam ko ci sen ndey mi sa jëkër di yow déjà xam nga na café de Rome la doon taxawaalu ton mari café de Rome lay taxawaalu sa papu domi yow sa tal sal ñep xam ko muy isa Issa café de la doon traîner ton vieux cauchemar là café de Rome la doon traîner on vous connaît vous êtes sale yéen da ngeen tilim comme bi ni mu mel noonu nga mel tu es sale kenn setul ci yéen jëkkër ji café de la doon traîner Issa Sall dem leen ngeen laaj waa kafe de Rome wala ngeen laaj sénégalais yi xam ils vous diront que le mari de Aïssata Tall Sall café de Rome de doon traîner ñaari Fatima à Clédor Clédor Lenko lañ ko Issa Sall Bayam, Clédor Sall la tout. il s'appelait Clédor Sall Mom Issa Sal, momu, juge le magistral magistrat la ci Abdou Diouf il a été radié de la fonction publique motax ñu ne len toujours doom yaram rek mo mën jur doom yaram doom yaram ak doom yaram ño mën and c'est pas ni nee du n'importe qui we know them so well mom jëkkëram Isa Sall la tuddu isa Sall Fatima Sall Fatima Sall muy doomu ay Tall Sall pour ngeen xam ni ma ko amul dom ba légui ci seyam ndax ñi dañu doon ne la góor ak jigen mais bi ciow li baree riir bi bari riir bi bari ñu jël ko ñu laxas ko Pape Pape lañ ko laxas parce que Pape nous momit ken xamul lan mais de toute façon pour neexal pour l'ami ñu Pape gay, ils ont donné un contrat ñu jox leen contrat bracelet euh, électronique électronique c'est entre Pape Gueye et Malick Sall l'ancien ministre l'ancien ministre de la justice Malick Sall màgget bi moom ak Pape Gueye bracelet électronique yi ngeen di gis ñu ko doon testé ci senegal jëndee ko ci maanaam website yi mu ñàkk sa lool ñoom ñaar la jox contrat boobu boo demoon Ali Baba léegi nga mën koo jënd Ali Baba nga mën koo jënd il faut ngeen xam ne dinañu xeex ak yéen on fera face lépp lu dal Ousmane Sonko ta famille ne sera en sécurité sa doom yooyu la neex muy Fatima ak Clédor ak sa jëkkër isaa ak yow doo leen am jàmm ci Sénégal bii ñu nekk yow sa immeuble sax xam naa ko xam nga wax naa la xam nga bu ñu neexoon dem taal ndeyam xam nga bu ñu neexoon dem dal sa kaw mais dañ lay xaar on t'attend nee la sa immeuble bi nekk ville rue Jules sax xam nañ ko rue Jules Ferry ban ba fa am ci tappale xam nañ fi mu ne et on vous connaît on connaît vos domiciles boo leen yaakaaree ne vous pouvez nous intimider yéen a ngi naxaat seen bopp Aïssata Tall Sall parel tu es sur la chaise chaude ñëwaguloo sax ministre de la justice yaa ngi tàmbali sa banditisme ñu ngi lay xaar wa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu